ngu jigéen ñi ci dunya jaaratullaay bismillah inna waliyallah asbiyallah wa ma tawfiqi illa billahi waa sëñ laay euh, wax nga ma lu ma sawar tey lu ma bëgg a yee bokki taalibe ci sunu soxna su tedd sii soxna jaaratu illaahi gis naa ko maam jaara Seydi Musaa wax maam jaara jaaraam maam jaara ko am jaaraama yaa ko waral sa dooma jub nga jubal nga jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe ba leer ya jolli te jikko yi may bëgg a lim amoo leen jigéen ñu bon ña ko yoroon yaroo leen daawu la jëw doo jànni daawu la jaye doo jaayu doo jaayoo ko jaaye ca jaye yaa soobu yoonu jànnatu nahim ku dem jaanama ak jahim sa raagi tax na ba ragal nga yàlla rafet rafet njor te xam nga yàlla réewoo réyoo réeroo ne naa la daali doo rumme doo rambaaje bu sa baali Cheikh Bamba ba taalee ba leer ga jolli nag moo xam ni kuy wàllu yi da daa wàlli mu taal Cheikh Rahima Fall mu dale gét ndar di dindi bu nu Cheikh Rahima Fall mënee taggaale ngir ay mayam mënee su koo tuddaale te xam ni kat kenn mësu koo xëy faale Bamba faale ko réew mi daal di koy faale jaaraam maam jaara ko xam jaaraama yaa ko waral so doo ma rey karaama jaaraam maam jaara sahar ful jiimi jox na jikko yu rëy yu yéeme jaaraam maam jaara yaa fi am sa dooma raw kuy jàng bisimillahi bu ko defee loolu jikko yu tedd la yoo xamante ni di may yu tedd yoo xamante ni kenn fekku ko ci nga xamante ni kenn la ci Serigne Touba dafa liggéeyal Serigne Touba maam jaara moo tax li mu am mu am genn màggal la goo xamante ni benn soxna la ndax murid yi kat da ngay dégg naa maam Mor Anta Sali na sas Serigne Touba mu di ko bayal maam jaara da daan liggéeyal Serigne Touba maam Mor Anta Sali daa liggéeyloo Serigne Touba kon nag maam Mor Anta Sali mooy kilifa gi waaye soxna jaarut illaay mi doon liggéeyal Serigne Touba nga gis li mu am genn màggale ci àddina boo tàmbaloon fi jant bi fenk ak fi muy soye benn jigéen bu fi am màggal gu toll ni màggalu soxna jaara bi amul liggéeyal Serigne Touba ko ko may suturaal na Serigne Touba liggéeyal na ko jàppale na ko aar na ko kem kàttanam ba ci sëndiidi nga xamante ni ñun moom la ñu def muy sunu ngànnaay ca poroxaan la ko sëriñ Touba binde jox ko jaaratu ilaaj booba maam jaara cheyfula bu Cheikh Bara Jilaani bi lay jàng di leen ko tufli moom maam Mor jaara sëriñ Touba tuut tànk la ni ko sama waajur sama ndey loo jublu ci lii mu ne ko bañ bukki ya gaynde yi lekk leen rek ndax boobu bukki yee gaynde yaa ngi wex poroxaan wex xat foo génn bukki yi dogal laa gaynde sëriñ toobaa ci la taalife sindiidi bi jox ko ko ni ko sindiidi bi moo ëpp doole cheyfula bu Cheikh Bara Jilaani bi mooy sindiidi boobu bu ko defee kooku yàgg naa liggéeyal Serigne Touba yàgg naa sàmm Serigne Touba yàgg naa sonn ci Serigne Touba te bi muy ñëw ci néeg Mamor Anta Sali fukki at ak ñeent la am ba muy ñëw mu wax ni xaatimi nabi ina wi imaamul mursalina jëm a gis ci alxuraan ni kii mooy mottalikaay yonent yi bu du koo nag loolu dinaa fi indi lu mel ni yonent bi waaye nag dinaa fi indi loo xam ne fu yonent bi teggee tànkam mu teg ko fa ci fukki at ak ñeent wàcc alxuraan tafsir téere yëpp jàng firi jàng laxdari yu jàng téere mag yëpp xalil ak lu ne maam jaara ramassé na ko ci fukki at ak ñeent ginnaaw bu mu toree taree alxuraan dogo dem ci néeg Maam Mor Anta liggéey fa lu toll ni maam jaara moo tax ñu naa ab liggéeya may maam Mor jaara yéen a jaay bàmba la mu liggéeyoon mooy maam jaara maam Mor jaara magi Serigne Touba bu góor boobu bu dul ko nag Serigne Touba fi jant bi fenkeek fi muy soye moo fii man Serigne Touba ko làq ba feeñut waaye moom moo rawoon ci soodaan su ma saana toog ci ker garab rek garab yi da ko naan nangami at laa fi am nangami xob laa am nangama tax yàlla wàcce ma fi nangama ke nangam laay faj maam Mor Anta Sali taawam bi di maam Mor Jaara amoon na maqaama moom mais teewul Serigne baa la mu liggéeyoon nag mooy maam Jaara boobu. sama borom wàññi ko nag faye ko sëriñ Touba nag ndax yéene ja la mu yéene woone liggéey doole matewu ko sëñ Touba wa sama borom wàññi ko faye ko sëriñ Touba nag moo tax ñu ne ab liggéeya may maam Mor Jaara yéene jaay Bàmba yéene moo ëpp pay jëf moo tax mu am sëñ sa xaadimu rasul xaadimu rasulillahi boobu nga xamante ni maam Jaara mat na ndey ku ne la Serigne Touba waxoon ndax bi ñu ko Serigne Touba màggee ba jàppanteeg Touba ba embarqué jëm ci géej gi dégg nga mu ni ba mu demee ñu dugal ko ci néeg boole koog gaynde gi boole koog nag wi ca ndakaaru ba tëj ko ci néeg boo xamante ni néegu automatique boo xamante ni ndax léeg-léeg damay dégg sax ci nettalikat yi ñu naa ba Sëriñ Tuubaa duggee ci néeg yi ba mu joggee puso ba dafa sar ba bënn ca kaw nga dégg mu murit yi yooxu Sëriñ Tuubaa puso mësu koo jam Sëriñ Tuubaa nee na bi ma duggee ci néeg yi puso automatique yooyu ne fa demee ba ma ca joggee dafa mel ni bagaanu sunguf lépp dafa seey Serigne Touba nee na keroog maam jaara fekk na ma fa di ma ñaax te di ma dolli daara Serigne Touba maa doonoon sa seede ba nga ganee jamono danga waxoon ne sa borom dina liggéey lu kenn mës sa liggéeyal ci kaw suuf kon liggéey baa ngi noonu di tàmbali yaa ngi noonu di tàmbali dénk nañu la yàlla dénk nañ la Seydina Ahmed yoon waa ngi noonu ni nga demee noonu ngay ñëwee mu ne fii laylatul jumhati lañu ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu yi naa ko làmbal mu làmb daj ay gobar ak ay rabb ñu tëj ko foofee mu dem des fa ak rabb mu juble xibla daal di kàbbar mënta su joon ngir tartan mu jàng fa saara fa saaru imraan mu jaar fa saaro bàqara ak imraan yi jibril ñëw tijji néeg ba léegi néeg boobee maam maam jaara fekk na fa Serigne Touba Serigne Touba nee na fu ma mës demee ci géej gi xat-xat yi ak lu ma nasaraan yi def bu ñu nee suba la maam jaara dina ñëw ni ko liggéey bi tàmbali na tey nàngam la ba ni Serigne Touba ñëwaate bu ko defee nag looloo tax doomam ju baax ji di Cheikh Mouhamadul Bachir moo feeñal Poroxaan moo ànd ak ay taalibeem wàcc dox dox dox ba jub barab bi summi dàllam xëcc ba ñëw daal di tenni soxna jaaraa ngi fi booba ay garab a ngi ko wër dédd yi kenn dëkku fa dëkk ba tas gent ay ati at Cheikh Ahmadul Basir xool ni soxna jaaraa ngi fi teen ci kaw ni mais sama borom yëkkandi ko ni mu nga ci kaw asamaan suñ defee xabru bi soxna set dana wàcc si loolu moo indi poroxaan sëñ laay ko defee a ah, xam naa kon ñu xam waaw yëg yëg-yëg bi ñuy am nag waaw bi ñuy am nag moom xam naa ni ah saa yu poroxaan jotee rek sëriñ Tuubaa dafa wax ni maam jaara mat na ndey ku ne man ngaa ñëw ci barabu sëriñ Tuubaa bee doo fa fekk Serigne Touba nga ñaan tey ñaan suba ñaan ginnaaw sa mais Serigne Touba na poroxaan soo fa ñëwee ñaan mu nangu ndax xe fa xippi june ku fa dugg dinga ma fa fekk mbaam a fekk la fa yëg-yëg boobu nag la fa murid yay dox si am na ñu ni yëg-yëg ba ñu am mooy boo deful soxla yi ñaar lu may def ko benn ñaan ko fa booy ñëw di ci teg sa bët moo tax murid yëpp pas-pas booboo leen fa yóbbu liggéeyu soxna seet toll noonu looloo tax nag ah àddina bépp yëg ko ndax nit ñi dañoo bëgg aajo ju faju ak mbir yu jub te aajo jo faju ak mbir yu maa ngi fàttali ko Macky Sall bii sax ba muy voté atam maa ngi dégg keroog campagne bu mu wëndeeloo jaar fa daal di ni fii ka dégg naa ko fi jëkk lu fi lu fi nii da ngeen koy ramasser kon nag na ngeen sëñ taxaar na ngeen seede ni ñi maa leen fi jëkk nga xam ne noonu la ko yàlla may réew mi tamit ca jamono yooyu ma dégg mu waxee ko noonu ni mii ñii nag xam leen ni maa leen fi jëkk soxla yooyu ak yëg-yëg boobu la murit yi am ci di fa di fa faji seen aajo moo tax bu fekkoon ne ni gën naa sori nee mu toll téeméeri yoon it murid yi dañu mu mobiliser teew fa màggalu toobaa gi màggalu poroxaan gi rek la lay niro toobaa benn xew-xew mosu koo ŋacc lu may màggaloo yëg-yëg boobu la murid yi am benn xew-xew bu mos a ŋacc toobaa nga ñëw fa yëg ne dara am na lu dul màggal poroxaan gi amul boo demee toobaa daanaka day def wëyëg ñëpp a ngi wuti ci maam jaara noonu ko defee ah loolu kat xam naa ñu yamandi fi rek ba yeneen jamono sëñ laay jërëjëf yal na yàlla sàmmal nu la nag waa lii moom doy naa sëkk a xam waa doy naa sëkk a xam ci soxna si doy naa sëkk a xam li ñu ci xam sax bari na mais moo tax ñu xaw ko gàttal fenn fu nu ñu sëq fa dara ngir rek ñi koy dégg man cee jariñu xam ne soxna si kenn la ko amulum ñaareel kenn la ci sëriñ Touba yi tamit ni Cheikh Rahima kenn ni la soxna jaaro doone kenn amulum ñaareel sëriñ Tuuba jëf maam jaara jaaraam maam jaara ko am jaaraama yaa ko waral sa dooma rëy karaama jëf soxna jaaru illaa jërëjëf yaa xaadimu rasulillah jërëjëf Cheikh Seydou Malal Mortada ñun jamono bu bi ma nekkee tëneeful Cheikh Seydou Mortada bu ñu nee suba la laay gis mu dem poroxaan bu nit ñi ñëw mu dajeek ñoom daal di wàññiku jamono bu ne bu ñu nee suba la poroxaan ja fa lay màggal romb na ma ba tàyyi dem faak Euh, euh, si portam bu weex boobu ñu defoon biddiw bi ci ginnaaw romb na ma ba tàyyi nga xam ne bu ñu nee suba la poroxaan fa lay fanaan bisu poroxaan bi mujj yoo léeg nit ñi ñibbisi doomi Serigne Touba yépp noonu lañu ko fonke xam ni seen maam la ju mat maam ju mat taxawaay ju liggéeyal seen baay xaadimu rasulilaay moo tax sët yeeg sëtaat yëpp mel ci moom noonu jërëjëf sëñ Abdoulaye jàmm ak xéewal لممكن من الله خدما خدما